ay ca mbokk yi dal leen ak jàmm te toog déglu ma ma faram fàccee leen li gën a fës ci yéene kaay la ma koy tàmbalee mooy président Macky mi xëy saf sàpp ci journal boo tëjee maa la ko wax mën la ku ko fësalul ci sa xët wu njëkk yéene kaay tamit yéy nga ci mbir mi yàbbi sànni ko ci sa biirub journal ginnaaw ndaje mam doon amal démb ci àllarba ji fële ca conseil des ministres président Macky moo fa yëkkati kàddu gu jaaxal ñëpp te yëm la yéene kaam la mu ñu xamal mooy ndakata Macky lam doon nasa ko noccee ka tabax yëpp xëy na kaay bi di nga ko a moom xëy na addu jëmale ci mbir mi ginnaaw bi Macky ne day indiwaat lii di poste premier ministre yéen kaay bi la ma gis ma Macky Sall fu mu nekk nii bato bu réer la ci digg géej day daw rek waaye xamul fan la tefes gi féete enquête yéen kaay moom ginnaaw ba mu defee enquête la mu gis ca mbir ma mooy kii di président Macky Sall dafa juuma juum ginnaaw bi mu supprimer lii nga xam ne moo di poste premier ministre ba yéen kaay bi xamal nañu ñaari at ak lu teg ginnaaw bi nga xamee ne Mahammed Dionne jóge ca poste premier yéenekaay bi di enquête la mu mujjee ak ñun nag mooy di sampub laaj ngir bëgg xam kan moo nar nekk ci poste premier ministre bi nga xam ne Macky Sall fas yéene na koo falaat ay ci ñu bàyyi mbiri Macky Sall te fas yéene wax boog ci mbir Ousmane Sonko njiital Pastef mi xëy moom tamit di yëkkati ay kàddoom ci yéenekaay bi di source a ginnaaw bi mu bañeenu di signé li ñu ab charte de la non violence njiital Pastef xëy na di yëkkatiwaat ay wax ak kilifa diine leen a ëpp ay loxo du ñu dóor kenn du ñu saaga kenn waaye képp ku leen tooñ bu sooba yàlla dinañ ko fayu Ousmane Sonko yëmul foofu xëy na tamit di dànkaafu ki nga xam ne mooy doyen des juges bu bés bi la la ma koy xamal mooy nit ku intègre la nit ku mën liggéeyam la waaye li ko jaaxal mooy dafa faibloo faibloo Macky mën na ko utiliser te du ko yëg ay coba tey ñu wéy ci mbirum Macky ak yéene kaay di Vox Populi moom tamit mu xëy nag sampub sup premier ministre yéene kaay bi ñëw na ci ñun tamit explication yi nga xam ne Macky Sall jox na ko ay ministre am mu jàkkaarloog ay ci biir yéene kaay ni dañuy jiixi jaaxa rek a nekk ministre bu moom kese moo nekk ministre bu APR maire boo xam ni bi Macky Sall faloo ba tey mu ngi ak moom yéene kaay bi nag di njortu ni ndax du Abdoulaye Daouda Diallo moom moo nar a nekk ministre bu bees bi la ci gouvernement Macky Sall bi ay te ñu jeexal yéene kaay bi ak tàggat yaram ànd ci ak journal bi di record mi xëy duñu xamal ci mbiri Krépin Diatta ak blessure ba mu am fële ca genom ba yéene kaay bi la mu ñu xamal mooy kii di Krépin Diatta du mën a football li nga xam ne mooy masu coupe d'Afrique